assalamualaikum sama amee tiktok yi ma ngi leen di nuyu yeen ñëpp di leen ziar bu baax baax am lu ndaw rek luma ya, bëggoon wax da Ndiaye Fouta gambi yow fan da yow dur yow pour man sa jé génn bi sax yow bo génnee da ngay tuddu solution ya, wala xol wala sa yaram daw mais defoo ko ndax génn naan waaw waaw wala faj dañu exposer sama dom. waaw dama leen di porte plainte ñu ak eh man ma yóbbu sama bop ba fofu kenn woowu kenn woowu ma man maa yóbbu sama bopp boo amee dara looy wax wax ko ak man te booy porte plainte porte plainte ma man je suis majeure et vaccinée xam naa lu baax xam naa lu bon man nag wóoruma que ni yow yaay sama yaay mais yow bu fekkee wóor na que ni yow yaay sama yaay war nga xalaat ne jukki du bukki du jur muus ah non non non te bañu ma ci dara te man xaw ma ñeneen ñi lu ñuy wax mais ñi ma dëkkal xam nañ ne li may wax dëgg la kon yow li ngay wax yëpp man lijjantiwuma ko Pape Ndiaye fu mu yem neex owal say avocat fu mu yem neex maa ngi xaar sa plainte yow ba xam Eu perante them.